dama amoon benn wëllëre tubaab ko am àll wala ndax agrégé la ci wàllu histoire

mu fekk ma ci waxtaanu critiquer sëriñ mu ni ma bu ko defati ma ni ko lu tax lima su ngeen demee ba ca kanam di ngeen xam ni politicien taniwul sëriñ waaw ma xam ni ndeke xeeb sa cir mooy tax ngay naw ku jaru la naw waaw ha.